bi leen nuyoo di nuyu suñ mbokki sénégalais suñ mbokki sénégalais yëpp góor ak jigéen mag ndaw di nuyu fii nga xam ne moom lañ am muy ndula te nit boo bàyyee sëb cër foo dem fekk kooka toog cib cëram ñun ndula lan am ndula nag ku leen bëgg a tegu tiis doo ca am ndam ndax day dëkku cosaan boo xam ne bari na ku yor taraanga ci senegal ba ci naari libaane yi fii sa taraanga soso muy dëkk bu yàlla teral doon dëkk boo xam ne nag tiis yu ñu am Sénégal gépp ko bokk ndax ndax ndax day dëkk bu yaatu gannaaw di dëkk cosaan léegi nag li may njëkk a wax mooy li euh, euh, li ñu di ko wax mooy ndox ndox moom ku ko xañ nit xañ nga ko lislaam ndax nit mënta julli te jàpput ngeen ba taxay te sangu farata bu fekkee am na lu ko taxaw fara sangu farata kon nit bu xëyee amul ndox day nekk en vide ndox mi ñu nu xañ nag te tëraluñ ko ci ci benn fulla lu dul ak yabeel maa ngi xamal président Macky Sall waxuma ak ministre hydraulique waxuma ak kenn président Macky Sall laa laay waxal ndax maak moom bi mu bëggee réew mi ñoo ànd ndiko wut ba bis ba muy doon dernier tuur moo ko Ablaye Wade keroog place Obélisque duus parti yëpp ànd ak moom bi ma agsee dane ma doy nga ma jëlal parole ma jël parole xeexle ko kon dëkk bu ma nekk kenn waru koo xeex facture yi ñuy wax di ko teg waa tund wi ak forage bi factures yi ko amut loo añee amoo loo reere doo fay ab factures yi quarante mille ak cinquante mille ak soixante mille loolu du am maa ngi wax Macky Sall directement ne ko man seexu naa miin nga ma miin naa la xam nga ma xam nga ma xam naa la te nee nga sama xarit nga ma bëgg daal ndula gii am na tardement yu bare bare bare bare bare yu nekk ci dëkk bi man nag damaa njibbi si ndax dëkk bi saafarawu man dooni doomi dëkk bi laa fii laa juddoo ci xur wi aw ma lu dul dëkk bi ma bëgg lépp loo xam ne ñun waa dëkk bi ñoo ko bokk bëgg ñu ànd di ko yëkkateendoo di ko tegateendoo ndoo ma bëgg leen xamal ne forage bi. waaw gën a gaawee. ah. nan ko saafara. facture yi ñuy wax kenn du ko fay. amuñu luñ koy faye bukki ban ko laa bukki bukki bukki ko laajee ku nay. dani ku yoru dara moo nay. Mhm. ñii yorunu luñ tan liñ tal mooy luñ añee wala luñ reere. am na ci ñoo xam ne du ndékki mhm. buñ añee duñ reer. buñ reeree duñ ndékki mhm. kooku mënta fay ay ay factures neex. man nag damaa jóg di wax ak euh, li may wax rek laay insisté wax ak Macky Sall directement. na ma ko na ko saafara. te nu mu gën a gaawe ànd naa ceeg waa dëkk bi nag suñu ànd ndox meeg forage bi moo gën a tuuti ci leen war am. Hmm. te dara amu fi. loolu nag loolu nag day yeex ma bëgg mu xam ne dëkk bii bañu ko da da leen a jàppalewut yaa ngi may dégg. samp fii itam kenn nit ko am maanaa koo xam ne mën na koo jàppale pour waa tund yu bëgg ko bañunu ko fii bu fi defee lim fi war a def bu fi watee mooy gañe loolu laa ko bëgg a xamal dëgg la de may dégg bëgg ñun yëpp ñu ànd génn bëgg mën naa leen a waatal ci Serigne Touba ne euh, forage bi dana saafaraw eh, lu dul sa lu dul forage bi itam billahi xam naa ne dana saafaraw léegi xam nga lu ma nar dëkkandu la définitif bu ma faatoo ñu yóbbu ma Touba ma rob ma fa bu ma bu bëggee bu ma bëggee siyaare ji dem siyaare ji ndox mi metti na bërigo euh, bidoob ndox bu demee bay jar ay trois cent am ñoo xam ne amuñu loon añee loolu metti na man fi mu toll sama yooto ñoo may rootali lu war a mat trois semaines a ngi nii quatre semaines ñooy rooti ki amut deux cent franc yu mu añee nag bu bëggee jënd ab bëri goom ndox trois cent ak yeneen yu metti yi ak elaw yi ak yëpp a sonn ma ki daal ma bëgg mu gën a mu gën a xoolaat boppam yaa ngi may dégg forage bi laa day day day réglé Macky Sall bu déggee sama baat barke Cheikh Ahmadou Bamba dana ko réglé barkeb barkeb Serigne Touba dama ne dal naa ci kanamam ci kanam Ablaye Wade boobu muy ministre de l'intérieur président assemblée ma dal ci kam Ablaye Wade ci kanamam fu moom xam na fa ma jaar ak Ablaye Wade yaa ngi may dégg moom nee na sama xarita te réew mi yëpp lay wax sama xarita bu dee sama xarit bu mu toroxal fi ma dëkk fi ma dëkk laa am nanu sagal ñun ñëpp te sagal ma pile rapidement la yónnee ñu defar forage bi balaa mat ñaari fan burul loolu burul loolu ba ma waxtaanee waa tund wi bu ñu yëngatuwaatee ay gendarmerie ki police ki militaire mënuñu ci ñun dara. maa ngi maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen xamal ne saafara si moom ja eh, saafara na maa ngi nuyu. Euh, euh, presse bi fi ñëw ndax jàngorokat boo amut ko ko siiwal du siiw. journal yëpp a ngi fi. yéen itam yéen a xam nga kuy caddi caddi boo amut fu mu géexee day far bun ko géexee nag mën a noyyiwaat ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan sa mu gën a def jàmm ci adduna bi def ko ci réew mi def ko fépp wasalaamaaleykum wa rahmatulah.